Euh, gërëm rek di sant yàlla bu baax subhanahu wa di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant tamit xaadimu rasul suñu yaakaar di nuyu di sargal di sant kilifa diine yi ne ci réew bi yépp ak foo ak fu ñu mën a bokk ak lu ñu fu ñu mën a nekk di sant bu baax di gërëm tamit directeur général bu Sonatel xam ni lii yombul woon waaye mu taxaw ak équipe xam ni lii lenn rekk mooy li ko njor mooy ñu liggéey senegal ñu liggéey Afrique lii dara raxu ko lu dul liggéey te nit mënul liggéey lu dul fi mu nekk ak fi mu dëkk feneen foo dem doxandéem ngay dëkk tudd kon nit bu nekkee ci dëkkam nga xam ni fii la cosaanam nekk fii la mën a taxaw liggéey fii fii rekk la mën a liggéey te ñun wutuñu dara lu dul bëgg liggéey te it du liggéey ñun lu ñu jariñ rekk dañoo bëgg doomu aadama yi nga xam ni ñoom nekk ci réew mi doon ay gune doon ay ndaw am xëy di liggéey di mën a suturaal seen bopp di mën a yóbbu ci seen wéyjur te loolu mooy développement dëkk développement boo ci dindee boo ci dindee le développement humain développement du am c'est impossible parce que nit ki bala moo développé am lu mu sàmme ngorom li mu sàmbe ngorom nag mooy am xëyam di daan ñaxam di tuur ñaxam bu bu la mu liggéey bu jotee ñu jël la nga xam ne lii mooy àqam ñu jox ko ko Sonatel bi nga xam ni moo ñu accueillir mu ngi employé lu jege ñetti junniy sénégalais ñetti junni ci ay sénégalais te ñu xam famille sénégalaise ni mu yaatoo nga xam ni benn nit du pour fukki nit de benn nit pour téeméeri nit la ci suma bopp laa koy xamee ndax benn laa ci sénégalais yi ñu jël li nga xam ne lii patrimoine la ci réew mi ndax Sonatel nit ñi dañu war a delloo seen xel ca gannaaw la ko jur la ko juróon ba ni mu egsee fii tàmbalee ca office des postes et télécommunications PTT ba ñëw ci Télé Sénégal ba ñëw ci tel nu mu tërët yi nit ñi dañuy jàpp rekk wax Orange Orange marque la mi ngi mel ni Cirrus nii mu amee Promobil mais Sonatel c'est une société nationale c'est notre patrimoine à nu ñun ñii ñépp ku ci ne am nga fa dara ndax li nga xam ne li état bi def ko ci am muy participation au capitale c'est des biens publics qui appartiennent à tous les Sénégalais en plus de cela ya encore mieux il des Sénégalais qui sont actionnaires donc nous tous à travers nos structures, à travers nos sociétés ou individuellement. Sans compter le personnel qui détient une bonne part dans le capital. sëñ bi loolu ku ko jaawale ku ne la ngay wax xamuloo ko waxuñu nag jëble ci kenn ndax wolof day faral di wax weddi du ragal dindi tuuma la dañuy jékki-jékki di wax tubaab nangam ak nangam am na loo xam ni sax nañ ko ba xel nous sommes dans un pays sous-développé, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui n'a pas en quelque sorte une capacité technologique de pointe. Donc nous avons besoin de l'étranger. waaye nañ xam ne tamit y des secteurs et des sous-secteurs yoo xam ni yi mën nañ ci xajal sénégalais yi ñu mën ci am dara man ko delloo sénégalais yi ak xale yi nga xam ne ñoo ngi ci école yi chaque année des dizaines de milliers de bacheliers sortent Il ki en a qui sortent au, au, au, niveau du premier cycle secondaire. Il ki sorte avec des diplômes de bac plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. Ces jeunes Sénégalais ont besoin de travail. Je pense, loolu moo guidé le président de la République à créer ce secteur des MVNO. Nous savons que nous avons emploi indirect, mais emploi direct, nous avons 237 salariés. On peut vous le montrer avec des bulletins de salaire. et nous contribuons sur la masse salariale nationale kon Sonatel bu ñu ubbeelee buntam ni ñëw leen ñu ànd liggéey la ngeen fay am muy seen wërsëg ngeen jël ko fa du ñu man lu dul remercier leen te wax kuy sénégalais na leen jàppale boo waxee nag day am lu ñu lay jiiñ dañuy defe ni intérêt nangam moo tax wala boo waxee ñu ni nangam dañ koo jox nangam wala demewul noonu nit lu muy wax na ko xool ba pare na ci seet yàlla ak ñi nga xam ne moom la ko yàlla boole muy atiq ak ratib ba nga xam ne bii man lu ma wax damay ñaan yàlla lépp doon dëgg ndax tàmbale wuñu ak Sonatel état bi dafa lancé appel d'offre ñu soumissionné remplir conditions yépp ARTP dépouillé ñu choisir ñu te yam amoon na fanweeri nit yu doon yu doon yu doon yu doon yu doon yu doon postuler actionnaire bi nga xam ne bokk na ci Free sax bokkoon na ci postuler Telium la tuddoon ñu gagné leen ñu tra choisir ñett don Promobil ñu fayloo ñu le ticket d'entrée ñu fay ko 300 million ñu fayloo ñu ay droit parce que numéro boo gis ñu jox ñu ko attribué ñu ko dañ koy fay numéro bi ARTP da nga koy fay numéro bu ne fanweeri dërëm nga koy jëndee bu dee 1 million de numéro mu ne 150 millions bu dee 10 millions di 1 milliard 500 mille numéro ñu fay ko confectionner suñuy lépp ñu d'accord ak ñun entre temps société bi changé ay loxo ñeneen ñëw banque seen loxo ni duñ fi dugg tey duñ fi dugg ëllëg ñu ñàkk lu ëpp deux 3 milliards de francs ça fait 18 mois depuis le mois de mars 2019 ba tey nous payons des salaires à ne rien faire et ça c'est dramatique ñi nga xam ne nag jàppal ñi nga xam ne jàppale nañu te xam ni liggéeyal réew mi moo leen soxal muy Sonatel na leen sénégalais yi jàppale xam ne li ñuy wax ci wax Sonatel loolu lépp du waxi caaxaan bu ay nit créer seeni association créer seeni nangam taxaw ci mbedd mi di xam di wax loo xam ne xamuñu ko nit lu muy wax lu ne war na dem ba ca biir gëstu ko te les sociétés qui sont des sociétés commerciales obéissent à des normes obéissent à des études obéissent aussi à des paramètres que le commun des Sénégalais ne peut pas comprendre. Tu t'endettes, tu investis, tu as besoin d'avoir un retour sur l'investissement. C'est aussi simple que ça. Et enfin, en finish, la société que nous partageons en commun, qui est une société nationale, distribue des dividendes qui, va, qui vont revenir au public. kon bon dañ leen war a jàppale moom mu xam loolu jàppale ñu accueillir ñu yàlla boo leen réccu li ngeen ñu accueillir en votre sein on n'est pas là pour cannibaliser le système on n'est pas là pour créer des problèmes nous ne voulons que travailler gagner une part du marché des télécoms essayer d'investir dans d'autres secteurs aider la jeunesse sénégalaise et de surcroît aider l'État du Sénégal voilà la seule et unique raison qui fait que nous avons nous sommes rentrés dans le secteur des télécommunications kon monsieur le directeur nous vous remercions maa ngi sant ñëpp di wax ni di ñaanal encore Ousmane Blé mbay mi nga xam ne moo doon suñu directeur te suñu partenariat ak Sonatel ci gémmiñam la jóge ni ma comme ñi bañ nañu pa nañ dem ñu seeti waa Sonatel mu mel ni dafa yomb fi ñu jaar yëpp on a vu monsieur le directeur Sekou mu ñëw avec une vraiment ouverture d'esprit amabilité xam tamit li nga xam ne lii mooy mission mu accueillir ñu ba tey jii ñuy signer la convention pour être avec eux et opérer avec notre licence MVNO Ousmane moomu nag lii la yàlla dogaloon ci moom ndax yàlla moom dafa ni xalaxal mawta wal xayaat yàlla dee a jëkk ak bindu dund te tey kenn mënuloon a fexe ci ñun ñi ñëpp ba mu fekke ko te ñun ñi it kenn xamul kuy topp ci moom waaye moom la mu waroon a def ci mission def na ko ñoo ngi ñaan yàlla yàlla yi teral ko teeru ko yërëm ko ba nga xam ni buñ ko bëggoon ni dellu sil fii sax mu bañ ndax teraanga ju ko yàlla defal fa li mu nekk ci barzak di njaa di weesal suñu ñaan ak jaalam we juróom bu jigéen ak magam ak rakkam aki i soxnaam ak doomam li ci des boo ko waxee day mel ni du populisme te ñun duñu on on n'est pas waaye yàlla xam na li ñu yéene ci moom yàlla xam na li ñu yéene ci njaboot gi mu fi bàyyi yàlla nañu yàlla dimbali ba yéene joogu ñu am yépp yàlla may ñu ñu man ko def accompagner leen ba ñu doon ay mag looloo tax ñu ni suñu siège bi nga xam ni am nañu ñaar fukki siège ak juróom à travers le Sénégal on est à Dakar avec presque quatre sièges on est à Rufisque on est à Thiès on est à Tivaouane Louga à Saint-Louis à Matam Ourossogui nous sommes à Touba nous sommes à Ziguinchor, à Kolda, à Kédougou, à Kaulak, à, à Kafrine hein, et à Mbour. Donc nous sommes partout au Sénégal pour pouvoir aider vraiment les populations à avoir une approche directe sur aujourd'hui ce qui constitue un outil, c'est-à-dire c'est pratiquement notre accompagnant, notre compagnon de tous les jours qui est le téléphone mobile et les autres services que nous allons faire avec la Sonatel. Parce qu'on s'arrêtera tout simplement pas au fait d'être MVNO, nous allons signer un partenariat de distributeurs de tous les services et produits de Sonatel. Vraiment loolu jar na tàccu et puis ngeen di leen féliciter te di ñaan yàlla yàlla yàlla boo leen ci am dara loo leen di rëccu yàlla nañu dem ba nga xam ni mu nekk un amour à vie éternelle.